gars yi man de si yow lépp jàpp na. qui met en valeur

غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما علق والقاتل لما سبق الناس بالحق بحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم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 أما بعد ci يسامون معه تسليما وإحسانا رب اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنت وضعك ووضعنا لك الأرض فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا مرضت نصرا وإلى ربك برا الخير الخير الخير جانب جانب فقر ما ينيكو جبريل فاضل جبريل فاضل ci teewaayam jàngi ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla barkeel sëy bi yal na yàlla jubale leen jubale seen i wërsëg defal leen seen i sàkk jëf da neexal seen ànd yàlla def ko jabar bu bare ay saalihiin ak ay saalihaat ñu ngi sant yàlla ba ne ñëw ci dajee bi ñu dajee fii ci Manaratul Fayda muy ci jumaa ji di néeg yàlla bi li ñu dajale mooy dundal sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boole ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante ñi fas yéene daganal seen diggante loolu mooy li waral jotaay bi yàlla ki nga xam ne moom la ñu mayee muy jay naa ki nga xam ne mooy bàyyeem ñi bàyyee dafa ko muy nekk Seydou Tunkara mu nga xam ne kenn la ci ñun bi cër bi amee